jàngeen jëf ci ànd beeg seen télévision DTV 19h xabaaru marax yi. la fees bokk na ca ni ku ñuy jiñ nooxóor ngay soccoo tànku liir tax nga ca rippum du samay kàddu waa COS m ñoo ko xamle ñu ne mbirum Petro-Tim la ca Franck Timis wax moom mooy firndeel ni kon am na lu mu séq ak nguur gi loo xam leerul ca wet ga opposition bi ñoom waa APR nañu nañu ànd ak dal dañu ci ñëw ci biir xabaar yi dum gën yaatoo dañ ca bokk itam fak droit ca UCAD xëy tey tànk jipp étudiants yi mer ba futtu nee ñu seenu nekkin ak dëkkuwaayam moo bari benk ñenk lool dañ ànd ak Ousmane Ba ci biir xabaar yi dañ ci bokk itam lu jëm ci li nga xam mooy jongante Sénégal Cap-Vert ëllëg samedi incha lu di tax na muy jongante bu ñëpp di xaar ndax solo si mu am ci sunu gaynde yi Ibrahima Fall ma ngay topp sunu équipe ba tey mooy seen entraînement bu mujj laata jongante bi dañu dem ak moom en direct ci biir xabaar yi ngir xam am na sunu gaynde yi ci lu nekk jamono jim miskis faram gi Boki assalamu asalaamaaleykum wa rahmatullah gërëm leen ci ànd beek ñun ci seen télévision TV ñu tàmbali xibaar yi jëm ci lu soxal mbirum petro Team, Frank Timis mi jibal kàddoom yëkëti ab léral di mel ni kuy aar ak di wax ni Alioune Sall tekkul ci mel lolé kat wa COS M23 ne mi ngi saamandaay ku ñu ji ndëmb ngay socco tànku liir ndax bu fekkenté ni lenn ñuulu lu tax kon Frank Timis jibal kadom ci wet ga sax ñi nga xam bi ñoy wa neñu coow li léegi war naa jeex ndax nday mbill gi leexal na mbir mi dañ ci xuus ànd ci ak El Hadji Moussa Bey ab Frank Timis bu nam rek fayantoog ku jégi fa mbaxane doone benn moo génn di indi ay tontu ci li soxar rek contrat pétrolier yi mu di taxawaay boo xam ne nag nas nañ ko gisee ni ab tuur lëndëm bu ñu sukkandikoo ci kii fare ci commission orientation ak stratégie bu M23. c'est pas parce que dañ la jiñ que da nga def mais prouvé na defoo. donc bu ñëwee moom tamit ne day plante c'est de bonne guerre ñu dañ ciy kontaan. ci waxam bi sax xëy na moom dafa foog ne day setal mais dafa lëndëmal ndaxte dama gëm jàpp ne bu dee dafa nii euh, monsieur Aliou Sall employé am la woon. ñun ñu koy laaj ndax boo Aliou Sall nekk employé en même temps. fonctionnaire état Sénégal la woon parce que loolu violation wu taxes yi nga xam ne ñoo tënk kat la. ñi fare ci nguur gi ñoom jàpp ne kàddu yi nga xam ne milliardaire australo-roumain bi yëkkati na ko deful rek lu dul dëggal leeral yi ci nguur gi indi. li wax man dama jàpp ne éclairer na davantage li premier ministre waxoon moom c'est un homme d'affaires et un opérateur au niveau international maanaam fi àdduna bi yëpp ak ci biir Sénégal def ciy liggéey dafa nekk secteur am secteur boo xam ne dafa nekk secteur bu spécifique domaine pétrole la alors euh, li nga xam ne wax na ko dafay wone ne li nga xam ne moom la am comme ak euh, relation ak Sénégal dafa basé wu ci lu leer. ci laaj ya nga xam ne nag yenn acteur politiques yi samp nañu ko moom patron bu Timis Corporation la mu ci gis moo di rek ab campagne ngir jéem a yàq deram ngir teggi tuuma yi ni mel nag noppi na ngir saisir tribunaux yi. ne entreprise li ko njëkk a mooy crédibilité ngay wax ci rajo yi rajo ak télé yi ak journaux yi de façon internationale ni kii def na ni kii def na nii dafa njuuj njaaj ak yooyu mais kooku da ngay wàññi dooleem ci ay compétition yi muy wut ci marché kooku c'est très normal mu attaqué la nañ fexe nag ba bu su leen attaqué muy au niveau national ou international ñu mun a indi ay preuve ci li ñuy wax. mu dem porter plainte mu kii moom yëngaluñu li ñu yëngal ñun xam nañ ko te dara du ñu détourné parce que li muy def la tubaab di wax euh, diversion la pour ñu distraire ñun suñu yoon dañ ko jàpp te duñ ko bàyyi bu ko neexee mu porte plainte bu indee ay preuve am li ñu taxawaay bi nga xam ne nag Frank Timis am na ko ci mbir mi. mun nañu xaarandi débat bi jëm ci wàllu pétrole bi daal di toxu te fas yéene jëm rek ci wàllu yoon El Hadj Moussa Beye jaajëf jamono boobee opposition bi de buraka dal ni daañu amal manifestation fukki fan ak ñeent octobre bii ngir wili pande nguur gi bokk na ca ni ñaawlu doxin wi am ci mbirum pétrole ak gaz bu Sénégal bi waaye tam ñaawlu doxinu première dame bi di Mariam fay Sall ñii di jàngalekat yi bokk ci APR ànd ak Youssou ñoom dañoo xëy ndaje mu yaat dañu xëy la ñu xam le mooy jot na opposition bi toog ànd ak dal ca xam ni Macky Sall nguuram ñu ngi liggéey Sénégal ndaje ma yaatu woon ma nga ci woon reportage mbirum Petrotim ubbi teg classe gi waaye tamit dal gi nga xam nag ñenn ci kujje gi ñu ngi koy dal tey jii ci première dame di soxna njiitum réew mi. réseau des enseignants de l'alliance pour la république nag yéey ci yàbbi ñooñu Youssou Touré yi nag jàpp ni rek Aliou Sall tey ji set na wecc ci mbirum Petrotim moomule. Aliou Sall. nekkul actionnaire ci Petrotim Aliou Sall créewul Petrotim contrat yi nga xam ne ni aussi moom la Petrotim am ak Sénégal Ablaye Wade moo ko signé mat mat Macky Sall décret d' application bi mais Ablaye Wade ak Karim ñoom ñoo ñoo ko ñoo ko signé woon def naa kon loolu leer nañ te Petrotim aussi yorolul gouvernement Sénégal dara. wattu Sénégal nañu wattu seen bopp lu tax ñu war a wattu seen bopp parce que sénégalais yi xam nañ fi ñu jëm amuñu argument te Aliou Sall leen jóg ah. que ça soit très clair Aliou Sall taxu leen jóg ma wax l'en l'en, su Macky Sall nekkoon ci deuxième mandat xam nga wax sénégalais Macky Sall dafa bëgg Aliou Sall remplacer ko. c'est peine perdue. ñoom sax mer ba futu lañ def sax jëmale ko ci lii nga xamante l'opposition bu Sénégal. ñu dank am ngëpp nag dégmal ko ci front wattu Sénégal ndax tey jii sunu moytuwul xam nañ lu bari ci ñoom ñooñu lii. nañu Sénégal yabi Sénégal ngal la parce que xoj wàcc log bi ñu ko log nañ ko yàbbi te yàbbi Macky Sall ngir yàlla xamante nañ ñi nga xam ni lobby góor jigéen yi ñooy financé seen parti xam nañ leen ñi nga xam ni seen am-am luñ ko amee xam nañ leen ñi nga xam ni nekk nañ ministère de de des sport

Mansour Sow jaajëf ci wet gam ñi bokku ci APR ay jàngalekat ñoom ne ñu manifestation bi opposition bëgg amal nañ ko autorisé manam préfet na joxe ndogal may leen ñu mën ko def ndax lolu du yaq dara ci liggéey bu réew mi kenn ci ñom mi ngi nii Lamane jaay ak Mansour Sow. opposition bi na dox doxam wante ñu respecter li nga xamni ni moy état de droit bi euh, nit ñi encadrer marché bi ñun ñun réseau des enseignants do ci lolu lañu d'accord marché accord marche yi jarul interdire. bu doxee ba sonn Ablaye Wade bi ñu ko gañee fii lu mu commencé woon day dox day dox. Hmm? mais dañ koo dox mbàyyi mu dañ ko bàyyi mu dox a dox ba sonn dem yibbi France tëdd lu mu wàññi Macky Sall nan ko nan leen bàyyi ñu dox seen dox na bàyyi ñu dox seen dox seulement nag boo bëggee bi nag réew mi wax dëgg yàlla nag yoon am na droit taxaw ni la nag doy na. Hmm? yow dafa am la naqari nee nga dox nga wax nga na leen bàyyi ñu dox wax mais bu jeexee nag nee kenn ku rek dellu liggéey. ñaxtu boobu ñu war a amal ñoom opposition bi mu neex préfet ak mu naqari ko daañu ko amal la ñoo xam ne ñoom opposition bi ca ga jigéen ñi bokk ci manko watu Sénégal nee ñu ñooy jur ci xeex bi ndax ñoom dañoo bëgg sax dekkal talaatay ndeer bu fekkente ni ñaxtu bi yond ko jéem a aye Fatou Bintou Diagne. doxu ñaxtu bi ñuy amal la 14 ñu nangu ko wala déet jigéen ñi nekk ci mouvement wattu Sénégal ñoom fas yéene nañ ko rek amal ñoom naka kenn du leen jiitu ci mbir mi. moo dox bi mooy. képp kuy sénégalais te am fu koy metti ci Sénégal ndax kat Sénégal nee nañu màgget la fépp ay metti na bu mu xeeb dara bu fekkante ne day taxaw ci buntu këram di tàccu sax naka def mais li ñuy ñaan nit ñi mooy rond point RTS fa la ñuy dajee fas nañu ci kattanu yàlla bu ñu jugee RTS dox ba buntu ministère de l'intérieur. koo tere dañooy jalgati constitution. jaay doole dañuy jaay doole wante buñ ko teree it dinañ fa fekk sénégalais yëpp jonkon fa. seen objectif moo di créer ak cadre boo xamante ni dinañ fa dajaloo ngir mën a waxtaan fexe xeex ak nguur gi ba am li ñuy woowee état de droit. suñu leader yi dajee nañu. li ñu war a def dina raw Dakar 14 yeneen 13 régions du Sénégal. suñu objectif moy continuer and ba bañ fi jëlé Macky Sall. jigen wattu di woté rek bëpp jigen, waye tamit ndaw ñi nax rek ñu mëna amal mobilisation bu mat ñom nak ñuy fatali jëwri ñi fi nekk que ni manifester dafa nekk lo xamanteni constitution bi mo leen ko may. Fatou Bintou Diagne jaajëf du foofu rek mooy yëngu ndaxte jitam fi nga xam mooy UCAD fac droit jax na étudiants yi ñëw ni seen naqaru xol yàbbi la ñu góoxoon ñu naqar ñu seenu nekkin tar na dëkkuwaay ba jafe na lépp daal la ñu boole ci kanamu nguur gi ni bëgg nañ am nañ ci saafara mbaal la ko mooy daañu leen delluwaat dégg Ousmane Ba. gannaaw bañ naqaloo liggéey seen amical bi étudiants yi fekk baax sa UCAD te nekk fac droit wax nañ seen i métit kii di seen coordonnateur moo yor seen i kaddu dañoo amoon ay kaddu yu ñu bëggoon a lancer presse nationale bi ak opinion nationale bi kaddu yi jëm si condition yi ñuy dundee fii ci université Cheikh Anta Diop de Dakar plus précisément ci faculté de droit ñun dañoo nekk faculté boo xam ne dafa spécial ci biir université bi spécial dans le sens que ñun tay ñu ngi dund loo xam ne suñuy moom dunduñ ko mooy li ñu tuddee section unique section unique boobu nag ànd ak beneen situation bu difficile

wala soy tànn ko lay représenter da ngay tànn ko responsable da ngay tànn ko xamni tay su waxe nga xamni ki responsabilité lay waxe ki mën na la jëriñ mais do tànn ko xamni day jël say chambre doo tànn ko xamni day user ci pouvoir do jël koo xam ne day sag autorité do tànn ko xamni ne dalay duggal ci nguuta lu jiite seen amical bi leral na ne xibar yoy étudiant yi joxe ben du ci deug étudiant yu bëri dañuy wax ne dañ joxe ay logement pour amical yi amical yi jël ko foofu noonu li ma préciser mooy que ni avant ñuy tëj campus bi parce que bu ngeen ngeen war dafa am campus pédagogique am campus social avant ñuy tëj campus directeur ku dafa wax ne munuñ di fonctionner 12 mois sur 12 parce que am na travaux yu ñu war def mooy travaux désinfectés wala aussi rien de réfection yenn pavillon yi nga xam dafa yàqu. cela veut dire yooyu nag ñi ngi ñaax autorité yu yor wàllu njàng mi am gerte si université yi. ngir xam dund bu fa ne. Ousmane Ba jaajëf ñii ñoom dañoo xëy démb daal di wane seen naxaru xol daal di toog xundu ci ab sitting moo ñu ni wax ay médecins spécialisés ñoom nag seen naqar moo doon toog nañ fukki weer ak benn kenn fay leen seen i bursu lii moo tax ñu xëy démb buur jàkkaarloo nguur gi waaye tey jii kilifa gi dénk wàllu gu ni mel ci bàngaas bi sax seen i mbir tontu na leen bàngaas bi kat nee na ñoom ñooy di ñaxtu. amel len benn bourse ñan wara a fay bourse ñu ngi koy fay donte ñat ñu ngi ci ay jafe-jafe ndaje ma yaatu woon na ma nga ci woon moom day am tule reportage tontu du forox tax makkaanu joriñ bi ñu dénk wàllu yaram di indi leeral ci coow yi médecin spécialisé yëkkati démb ki jiite wàllu ressources humaines di ñu xamal ni amee luñ leen benn bourse dañ ko amel ay nit war leen ko fay fay ñu leen ko xam nga ñu wax ko amel nit yow bo may ñaan man mayeeguma la munoo li may ñaan par force dama la amel, parce que mayeguñ leen mais ñu ngi def suñu pexé yëpp pour xaliss té xaliss xaalis buñ ko amé dañ leen di jappalé ñu nak ñom ño bokk fi jëm duñu ay adversaire ndax ñang mom ñi jang bëss buñ démon ba pare si ba am li jassé ñun soxla nañ leen pour yóbbu leen si yi gox yeeg goxat yi ndax ñu liggéeyal askan wi. ki jité ressources humaines bu jëwriñ bi yaram dolu ci né ñañ doon may ay bourse ati wessu ñu ngi koy wëyel ba légui Ibrahima Soukandeela juuf dolu ci né ren koper gi ñu yor mo doyu ren bi ñu néwé xol li ñu yor ci xaaliss dañ ñaar mo mëna am ñu joxé bourse yu bess fay ñetti wër ñenti wër taxaw dotul am ñep wala ñu def li nga xamné mo gëna dal mo gëna moy ñi nga xamné amon nañ ko te ñu ngi leen koy fay té mën nañ leen continuer fay té du am gàllankoor ñu continuer fay leen ñu bees ñi nga xamné nak légui léegi ñëw di ñaan di wut bourse yu bees ñu leen ñu xaarandi ñu wut ay pexe pour am xaalis bo xamné ne dinañ ko jël jox leen ko jàppale leen ko ci seen njàng moomu ñuy jàng. njiitu ressources humaines bu ministère de la santé di ñu xamal ni bu ñu demee ba ci biir at bi am koppar yu doy daañu joxe ay bourse yu bees. waaye du ñàkk ñu am ci luñ ko teg dinañ fexe ba bépp médecin spécialisé bu nangu ñu may la bourse ba noppee ci sa jàng fu ñu la yóbbu ci biir réew mi ngir nga dem nekkal fa askan wi nga matal ko. jaajëf Ndeye Aram Touré ci beneen wàll jàppal leen ni ñële di luye ay woto nekk ci VDN bim seen njàqare tey la wàll gën a aay ab bataaxal la ñuy jot ni kat nañ jóge ci barab bu ni mel lii moo tax seen bopp ubu. moo tax it ci suba gi daan fàddelwaat xëy ngir xool seen mbir ana fu mu tollum ñoom nag neñu ñi ngi sàkku nguur gi dimbali leen wutaleen fu nekk wala sax ñu bàyyi leen fa ajaxa siisee ñuy dugal sa loxo bu baax ci wàllu koomu Sénégal ñi nga xamante ni ñoo moomee parking automobile ñu si bëri yëngu ci wàllu mécanique ñu nelaw ndax sommation bi nga xamante ni moom la leen mairie Wakaam jébbal di leen ñaan ngir ñu jëlee fa lépp lu ñu am ndax ñoom jàpp nañu ni lañu fa toogee légalul. ñun dañu amul doole moo tax ay sommation di ñëw ci suñu côté suñu amoon doole kenn duñu jox sommation dañuy dem uti suñu place bopp dem liggéey ñun nag amuñu moyen pour am place ñun ci trottoir yu mel nii la ñuy ñëw ko di liggéey nekkoon naa feneen genre cas yu mel nii ñoo fa jëlee ma ñëw fi unoo laa nekkoon Liberté 6 ñu jëlee ñu fa tabax fay immeuble. mécanicien bi nga xamante ni daanaka juróom benn doom la am liggéey bi moom lay suturloo ci loolee sax mu bind ab lettre bu mu nar a jébbal mairie bi ngir mu am autorisation toog fa ab diir. mu ñaan gouvernement bi ngir ñu andil leen ay saafara ci bile jafe-jafe ngir mbedd bi bañ a nekkati fu ñuy liggéeyee. ñun nag amuñu lenn lu ñuy def léegi nag dem naa mairie démb ñu ne ma naa bind lettre pour ma déposer ko léegi bind naa ko dem ko bëggoon déposer ji nii léegi nii pour ñu mën ma jox fii may fay par bés bu ñu ñëwee ne dañu taxaw ne dañ ko soxla urgent ma yëkkati jox leen ma dem seeti leneen du mom muy keneen ak keneen yëpp la ci boole yamalé su ko keneen jëloon tamit doxalé comme nu muy doxalé même chose lay wax ñun mécanicien yi suñu mëne dimbali ñu sétal ñu fo xamantene ñu ngi ni di jël mur aéroport diko yok lañuy yok non nañ ko def terrain ñu jox ko mécanicien ñu liggéeyee ko amul benn njëriñ foofu bayal bu mag boobu amul benn chance foofu nañ ko jox ouvrier ñun ñu liggéey ci ñun ñoo yor réew mi lii ci lañuy suturlu facture courant yi ci lañ koy fay ceeb ba ci lay niinee diwlin beeg yëpp xonet bi ci la ñuy fayee élèves maa ngi nii yor ay six élèves yoo xam ne dama la war a inscrire ñu dem jàngi te ci mbedd mi laa ko yaakaaree. ci xayma lu toll ci deux cent ci ay ndaw lañ nar a yàq seen ay gént ndax dinañ fa jëlee lu toll ci quarante parking féete fële nga xamante ni moom mooy ci VDN bi ñu si bëri nekk ay moodu moodu jóge ba Versailles ndax woote bi nga xamante ni président Macky Sall woote woon na ko tey jii sommation lañ leen jébbal ngir ñu jóge fa ci lu mu gën a gaawee. jaajëf Ajara Cissé ñu xuus ci xabaar yi wax ci mbirum tàggat yaram danaan coow ba ca stade Léopold Senghor fekk fa Ibrahima Fall xam ngeen ni sunu gaynde yi ñu ngi waajal seen jogante ëllëg ak waa Cap-Vert tey nag mooy seen entraînement bu mujj def ci tànk yi dara cukki-cukki tàngal yaram wi Ibrahima Fall fu ngeen toll maa ngi lay nuyu. Ibrahima Fall maa ngi lay nuyu. Ibrahima Fall moo nekk ci stade Léopold Senghor ngir ñu toppal ñu entraînement bu mujj sunu gaynde yi ñu bëgg xam ana fu ngeen tollu jamono ji Ibrahima Fall ndax mën na ñoo xam dëgg-dëgg lu su mën jàpp tey ci gaynde yi ak seenu entraînement noo ko jàngatee. allo. Ibrahima Fall ci stade Léopold Senghor sunu gaynde yaa ngi demal. sen entraînement bu mujj laata jongante bu ëllëg bi samedi incha Ibrahima Fall gaynde yi sen entraînement jangat buñ ci mën def yow mi xey xëy ak ñom ci ngoon tey jile. moo di ndaxte ni nga ko waxee ah, gaynde yi tàggatu nañu sen tagatu bu mujj ah, bi juroomi waxtu taftalee fanweeri simili ak juroomi lañu yex ci pelouse bi stade Léopold sera Senghor wala tok ay daw ngir ah, yee ap yaram bi. ngir mu mun a sàng jër ndax ñu mun a yegg ci biir stade bi tàggatu noonu itamit mu am ab xarañte ñu buñ ci waajalee ba noppi daal di def nag ñuy woowee football am moitié du terrain maanaam ñu xaaj terrain bi daal di def football seen biir ñaari groupe ñuy sol doxaar yu vert yi ñuy sol seen maillot jaune yi Sénégal yi di def ab li tubaab di woowee fluidité du ballon maanaam ñu def bal bi mu koy paasante ngir mu gën a gaaw mu mel ni ne façon football bi ni mel la ñu nar a seetlu suba

xamaguñu ci état d'esprit bi nga xamante ni moom la gaynde yi nekk waaye la ñu séenagum ak gis a gisagum mooy que ne ab match a ngi waaj ndax euh, def def nañ ci seen kéemtulaay kattan ci wàccaay gi xam nga ne nag ñetti fan yi ñu mujj yëpp dañu ñoo ko tëjaloon publicité yi ñu xam ne naka lañ lan lañ doon liggéey loolu moo tax tey ji ñu ubbi leen ko waaye liñ ci jot a nemmeeku xel mën naa mën naa dala dalandeegum waaw Ibrahima yaa ngi koy wax sànq jongante ba am solo la ñuy xaar ëllëg incha allah mais euh, noo gisee gaynde yi gis nga ci xar kanam bu bu am yaakaar physiquement ndax taxaw nañu wala déet jàngat boo am ginnaaw bi leen Aliou Cissé rënkeem def ak ñoom ñetti fan huis ay ay xale yu dal ay xale yu dal ndax euh, dañu am li tubaab naan am conscience ci la ñu jëm suba maanaam dañu xamandi ci la ñu jëm suba mu nekk éliminatoire coupe du monde gëj nañu fa atu 2002 ba léegi moo tax boo leen gisee da ngay xam ne. ñii am na lu ñu bëgg a wane suba am na lu ñu gis waaye nag gis nañ ci ci mel ni El Hadj Diouf comme ñooy ñëpp yuuxu nañ ànd ak ñoom ci liggéey bi ngir mën leen apprécier kenn ku ci nekk xam lan la sa morom di waajal ngir ñu fubal waajal ci li ñu mel ànd ak gaynde yi xale yëpp yuuxoon leen mais la ñu gisagum ci ñoom ca la ñu nekk mooy que ne euh, kenn ku si nekk waajal nga sa bopp te li ñu gisagum ci seen i kanam ak seen doxalin ci biir terrain bi xel mën naa dal xel mën naa dalagum neen nag mënuñu wax ne ñoo mën cap waaye tamit li ñu gisagum nii xel mën naa dalam day mhm. Ibrahima ngir bàyyi la euh, ci équipe bi xam nga ne amoon na ñoon dañoo xaw na yéex a ñëw mais yaakaar naa ne léegi ñëpp mat nañu ci seen wàllum état de santé jàpp nga ni amul xëy na lenn lu xel mën a njort ni ñoom ñëpp daal ñi ngi en forme xëy na voilà wax na ko léegi sax moom euh, Aliou Cissé ci leen tàggat nee na fu mu toll nii euh, macha allah ak kenn demul infirmerie maanaam euh, amul kenn ku ci gaañu ñëpp yegsi nañu teew nañu ngir fekkee lii di convocation gaynde yu Sénégal yi ñëw ngir honoré drapeau équipe nationale du Sénégal laa veut dire kenn ku ci nekk waajal nga sa bopp xam nañ ne fu toll ni jongante yi du yomb te suñu jëm dafa am solo mooy li ma ko jëlee léegi sax nañ fukki at ak ñeent demuñu fa kon nag kenn ku ci nekk xam nga li lay xaar Ah, macha allah ba gis ñu kenn koo xamante ni blessé na wala macha allah ba gis ñu kenn koo xamante ni am nga ab sa yaram sukkandi na. mu mel ni mu mel ni Fall mbooloo mi namoon nañ seen équipe bi lool sunu gaynde yi ndax ñu bari ñëw nañ cee stade bi ngir gis leen laata match bi suba. junj naa ko sànq que bi ñuy jeexal pour ñu tàggatoo ak eh, supporters yi wër leen ngir gërëm leen. xale yi dañoo mujjee màbb sax ci kaw stade bi wàcc ci police yi dem fekki leen ba loolu moo mujjee tax sax xam nga nag day desee wóor sécurité bi bu ñëpp màbbandoo fekk leen ci suuf day xaw a day dese wóor moo tax après ñu mujjee préféré génn dem dugg noonu xale yi gunge leen tàccu leen yuuxul leen mu mel ni tamit i tamit mhm. réconciliation duñ koy wax maanaam public bi ak joueurs yi mu ngi jubóo mu ngi am ndax ñu ngi dellu si waat ni ñu leen bëggee woon ci ay at mel ni loolu ñëwal na xam ci yaakaar fii rek ngir xaarandi ndege ni suba ñu daal di tàbbali li ñu naka la ñuy def ba def ndax kat namu nañ ko Sénégalais Ibrahima Fall ñu lay gërëm mu doon en direct ca sat yum fe nga xam mooy kon Léopold Senghor fa la sunu gaynde war a jàkkaarloo ëllëg incha allah ak waa Kabaar. mu soxal éliminatoire mondial 2018 ci war am ci réewum Russie Ibrahima Fall jaajëf wàccaat ci studio bi xam ngeen ni tam ki nga xam moo di Idrissa Gana Gueye moom itam kàddoom jot na jip jëm ci jàngat sunu jongante digganteem ñoom ak waa Kawer ëllëg incha allah Pape Kouly Diop it kàddoom jot na jip laata sa Gana Gueye Pape Kouly Diop lañu njëkk a diglu moom gis na ni jongante bi ñuy xaar bu am solo loon waaye nag mënut a yomb ndax équipe bu bi wuti na lool ak équipe yi nga xamante ni bi Sénégal gisee na ak ñoom bu yàggul. ñu teewlu lu kaddom amna lu mu dénk Sambou Biagui. ñu ngi ñu ngi préparé match bu baax depuis euh, lundi euh, ñu ngi ci euh, dynamique bu baax gagné nañ match dernier match fi à domicile euh mais xam nañ ne adversaire bi mo gëna mo gëna am doolé adversaire bi passé donc dinañ jéem a def encore match bu gëna a baax bi ñu defoon bi passé pour mëna gagner et match bi dafa am solo parce que parce que comme ni ma waxé euh qualification coupe du monde je crois que sénégalais bu nekk. Euh, mu ngi rêvé gisaat équipe nationale Sénégal ci compétition bu mel ni coupe du monde donc. ma nga muy kon euh, Pape Kouli Diop moom itam bokk ci milieu de terrain yu Sénégal yi di woon ak njàmbarteem saa su lii day firndeel ni kon sunu gaynde yi noppi nañu psychologiquement waaye itam physiquement ngir jàkkaarloog waa Cap Vert xam ngeen na Cap Vert léegi du woon Cap Vert ba woon ci fukki at ci ginnaaw ndax booba daanaka boo daan dem ca Cap Vert na bu la neexee doo sol dàll da ngay dem rek du ma leen dil siwaat waaye léegi adduna bi football ñëpp ñoo ko man moo tax sunu gaynde yi ñu ngi dànkaafu ni na Sénégalais xaar ni match ba mënta yomb faaw dina tar lu mu ci mën a doon daañu ci mat incha allah ëllëg waaye bala ñuy tàggoog yéen itam xam ngeen ni Idrissa Gana Gueye moom itam kàddoom jot naa jëpp ci mbir mbir mi mu doon moom itam xalaat goo xam am na ko ci jogante gi dañ ñëwaat léegi incha allah bu jàppandee jombul jàppandeegu dañ ñëwaat incha allah benn mu gën a yaatoo jaa ngeen jëf bokk yi lii moo laf laaj xibaaru marax allah boobu ñu bokk ñaanal ñëpp ñu bokk fanaan jàmm illa liqa